Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre du Travail en charge des relations avec les institutions, chers collègues. Euh, Monsieur le Président, yakarna a projet de loi du ministre de l'Intérieur indil tey assemblée moni Amnoumou am il y mel rek discussion yeeg yenn parce que ce xam li. Euh, consensus moo ko lal te mu jëm ci walu élection wax dëgg yalla lolu noppale euh, suñu démocratie électorale dafa am ay acquis yu am solo yu préserver am na ñu ko fi c'est depuis le code consensuel de 92 peut-être avant même mais mbirum élection dafa nekk une dynamique da ngay sukkandiku ci dara lu dëgër mais nag du tere ngay wut ay amélioration à chaque fois ci loolu lañ toll nii donc monsieur le ministre loolu ñu leen ci félicité bu baax euh, di saluer nag li nga xam ne yu bees yi nga xam ne dugal nañ ko ci ma tànn ci benn ba ñaar li ñu wax suffrage universel direct pour faire maire et le président du conseil départemental yi yaakaar naa loolu la population bi moko que laaj dialogue politique bi nangu ko lépp li nga xamné dialogue politique bi vraiment assemblée nationale exécutif bi duñ leen gëna classe politique bi duñ parce que nak assemblée nationale population bi lañ fi li ñuy waxtaanee en amont ba nit ñi d'accord ko ñun bu ñu ñëwee wax dëgg yàlla dañ ko war a dëggal di rafetlu nag loolu noonu si suffrage universel direct ci wàllu élection maire beneen point bi am solo bi ma ci relevé waat mooy scrutin majoritaire liste majoritaire bi nga xam ne grévé nañ ci tuuti yokk ko ci liste proportionnelle bi loolu tamit dafa indi lu bees la xam ne day yokk représentativité toutes les sensibilités politiques mën cee gis seen bopp loolu kay lu ñu wax peut-être réfléchir ci nuñ ko mën a yokkee ndaxte loolu tamit buñ ko yokkee day day gën a am solo rek moo tax ñuy waat président de la république ci esprit de dialogue am ñu gën a institutionnaliser dialogue boobu gën a mën a ay points d'accord yoo xamante ne yi en tout cas ñun ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo koy ñaan pour que dialogue boobu gën a mais monsieur le ministre euh, bu ñu institutionnaliser dialogue politique boobu nous ngi ci ay élection locale war nañoo jëm ci ay élection législative bu soobee yàlla waraat jëm ci élection présidentielle muy un cycle dana tax ñu mën a dugalaat point parmi ces points là nous bëgg na am ñu ko fi évoqué par rapport la discrimination bi ñuy def ci wàllu jeunesse ma considéré comme une discrimination négative war na parce que wax nañ ko lu jafe la ci suffrage universel direct ay candidats ñëw ex lu jafe la mais lu mën a am la mais bu boobaa buñ ne le plus automatiquement pourquoi mën nañoo d'autres d'autres critères plus positifs par exemple le critère euh, de l'élection territoriale pourquoi pas ñu le candidat qui a été ne mandat de conseiller C'est un critère positif ñu jël ko le profil ci wàllu njàngam euh, point yooyu Yakarna, point yu am solo euh, monsieur le ministre dafa am sama benn collègue bu opposition jógee ci PDS sax def une proposition bu am solo yaakaar naa man jàpp naa ne proposition boobu mën nañ discuter su parce que dafa wax euh, comme ci assemblée nationale un élu ba un élu local bu transumer war na perte mandat man de d'accord nous si ñu waxtaan dialogue politique bi le dialogue bi retenir nous accepter. ko mais fi ma d'accord ak moom def dañoo débauché seen ay maire ñoom yu ñu faloon ñu nekkoon PDS indi leen ma ne ko déedéet maireu PDS yooyu président de la république daf leen a jox ay PUDC ñu liggéey ci am solo mu jox leen Promoville ñu def ci ay réalisation yi am solo mu jox leen PACASEN ñu def loo xam ne ñoom yaakaaruñ ko woon ñu ne gonga balaa ñu fay des ci opposition bi ngal nañ dem accompagner président de la république loolu moo leen dal le président de la république nek di continuer ñi dem ci élection yi ci ak président de la république amaat majorité ci collectivité territoriale yi bëgg ah je vous remercie monsieur le président.